مني لمن له الوجود والخدم حمد وشكر وتقبل الخدم de Lyon mooy fii fii la ñuy jëlee train bi pour dem euh, Suisse euh, noo ngi nii xam nga fii nag moom mënoon nañ jël avion mais comme dañ nek ak euh, documentaire seen télévision Touba TV gis ngeen ko nii dina ngeen jëf Lo xew Genève rek nañ leen ko wax ñoo nga jëm Nations Unies bu mag bi nga xamni. Euh fofu war nañ fa tourner émission ak Serigne Sidi Ndiaye jàmbaari Serigne Touba jooju murit bobu. waaye noo ngi jógee ci Serigne Bamba Mboup mi nga xamni soxnaam soxna maam jaara murit yooyu nga xam ne lu ne daj nañ ko ci ñun ngir jëmmi Serigne Touba noo ngi leen di bàyyeek Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maam jaara sëñ Touba yàlla na faj seen aajo moo ngi bu baax baax père di ziar Nicolay waaye di ziar bu baax a baax ñoom ñëpp ci barke Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul زاد بري من كل من بالكفر زاد جروي ولا هدى سويت عن سوري إنسان يمن بالتوسل سبحانه ربني إلي ألتجي ومنه تفريج كروب ألتجي أكرم به ربا يقود ما يريد تقول لي بحول بحبلي يا من جميل العالمين جمعها الله ربي زاهرا وبادنا أشواف أيوة راهلا وخادنا

محب كل مسلم ومسلما مخيف كل مجرم ومجرما كتبه أحمد سازراتي على النبي فائزراتي sëñ Moustapha noo ngi nii agsi nañu Genève. waaw eh, sunu soxna su baax si. waaw naka nga xam ni day kenn. tey sëñ Sidi Ndiaye. ndeysaan. di ko liggéey di ànd ak moom ci liggéey sëñ Tuubaa bi. ana loo ma ci wax muy soxna Daba. waaw moom nag waa Ngathie la. di sant rek di wax ni niñ leen ko waxee woon bi ñuy départ rek. agsi nañ fii leen a defal émission yi ñu leen waxoon. ci biir Genève. waaye fekk fi soxna Daba Fall mu baax mi di soxna sëñ Sidi. Mhm. waaye di Yaay Fall. Mhm. ku baax ku bëgg sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima. moo ñu teeru nii war a ànd ak ñoom sëñ Mamour xam naa dañuy ànd ak moom nank rek ci yoon wi ba àgg incha allah ànd ak sëriñ Sidi. Uh-huh. su ko defee mboolem li ñu waxoon téléspectateurs yi rek ñu bàyyi ko xel xam ni incha allah rabbi dinañ ànd ak télévision Touba bi sañ Mamour. waa sëñ Moustapha noo ngi nii Genève. Mm-hmm. ñun fi ñu war a dem xëy na sax bari na mais duñ dem fépp. Mm-hmm. waaye am na foo xam ne sañuñu faa bañ a dem. Mm-hmm. sëñ Sidi Ndiaye mii. sunu borom dafa def sunu digganteeg moom yàgg lool bi mu ñëwee fii nag gis fii euh, taalibe sëñ Tuubaa yi kii ñëw ne ko maay yaay faal bi maay ànd ak yow ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi dëgg la muy gor di jullit bokk fu baax boo déggee ñu naan diggante njukkeeg ñamatin buur yi xam nga sëñ Moustapha est-ce que xam nga ni dammeel yi ci Lat Joor lañ la amee dammeel bu sant Jóob mhm. mais dammeel yëpp faal lañ daan nuyoo moom nag ay maamam ñoo daan falu ca Kajoor. bu déggee lee damel di Kajoor yaayam mi tudd Ngoone Latir Fall moo tax mm-hmm. ñu nangu koo fal ci Kajoor. bu déggee ñu naan le damel di Kajoor. Mm-hmm. lee teeñ di Bawol. Mm-hmm. damel yëpp Fall lañ daan sant. kii mooy mbokkum Cheikh Ibra Fall. waaw ah, dëgg kii mooy mbo mbokkum ñu baax ñëpp. dëgg la. Euh, kon bu ñu ñëwee fekk si ko fa moom nag mu jaay loolu. jënd ko ak gisut loolu man maay wax rek origine am. moom. li ko ñor mooy taalibe sëñ Tuubaa nga waaw dëgg la de buy roy Seex Ibra سلم لمالك منكرا فهذا أنني لله أنا هديم لرسول الله وأنني ما كنت تتبرئ من كل من بالكفر ساعة جره ولا هدى سويت عن سوري إنسان من يمن توت سبحانه ربني إليه ألتجي ومنه تفريج كروب التجي اقرن به ربا يقود ما يريد من المعلم من الخلق يريد استهلال موهيدا لو مع استهلال والتسدد لي بحول يا من جميع العالمين جمعها الله ربي زاهرا وبادنا أشوافون راهلا وغادنا ونساء وفي الذي إليه جملة الألفاظ علي يوما فيه يأثم مجرم وأنا لوما بكم يا دارين عبد الله خديم بن من الموت

dafa mel ni nit mosu jee taxaw nit dafa bàyyi suuf xëy na def nañ ko ca ba Amérique ba xëy na def nañ ko feneen a feneen waaye damaa bëgg sama ñaari jàmbaar yi suñu sapaatam bir ma rab bi maayo sowo bu tàn bi jër ñu xam ni lam ne woon danaa bàkkoo si ci seen ba tey rek noo ngi ci mbàkk bi moom suñu bàkk bi bu lëloo day day màgg daan waaye tamit mbër bàkk nañ ba xam ne nun nun li ñu ko doon mooy jàmbaar yi seen tubaab yi ci réew

waaye ni ma ko waxee noonu la valable ci Serigne Sidi Ndiaye Serigne su fàttan ana looy wax taalibe Serigne Touba waaye loo leen di dégg rabbi bima yasrahun asxaana ak fajaa bihaahi afdali man lillahi qad wajaa rabbi bima yasrahun asxaana ak fajaa أفتدي حمد الله قد رجاء حمدي لرب كريم لا شريك له وسبحي اليوم نورا فاتحا ملاء محمد صلوات الله في أباد عليه في اسمه كل به كلام أدعو إلى الذي أمان مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء ناجيته جل ومن وكرمني تكريم حاد وكل من لقا بريئا رحمن حبل جميع الخلق رحمة من يغني عني شر من قرآنه قراء هد أمة المصطفى من كل مفسدات وابتر عن الخلق يا من جاتهم بداء يا مالك الملك يا من جل عن خاد ارحم جميع الورى يا حاديا رداء يا مالك الملك يا من جل الخوات ارحم جميع الورى يا هاديا رداء محوت ما قبلها وقلب من بلد بجاه أفضل الله قد رجاء ñëw fii ci Nations Unies fii ci Suisse ni nga ko waxee nga xam ne fii la ñuy attee mbir yi te sëriñ bi moom ni ma ko waxee woon bi ñuy ñëw rek mooy ki nga xam ne yàlla da koo dénk àddina looloo tax sëñ Mamor ñu ànd ak sëñ Sidi ginnaaw bu ñu nuyoo nag ci rabbi boobu dañuy bàyyi modal ini. moom it mu daal di indil ci xasida yi rek ndax moom xam nga fu mu toll nii moom mooy suñu doyen yi tubaarkàlla sëñ Sidi bisimilah sëñ Sidi moom sëñ Mamoor moom Cheikh Mouhamadou Mourtada bisimilah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك مترى إني أخاطب النصارى ترى بأرضهم لمالك مترى فيقنوا بأنني إلهي عبد خديم لرسول الله وأنني ما صرت سات تبرئي من كل من بالكفر زود تجرئي ولا أداهن سوي التنصر إن شاء من يمن بالتبصر سبحانه ربا إليه أرتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد عليهم ثياب الأنوار ولسان أذكر عبده بدينه الإسلامي موحدا لما استسلامي أعبده بدينه الإسلامي موحدا لو مع استسلامي ولتصحدوا لي بقولي ما يوم الجميع العالمين جمعا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا أو خاتنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما يفوز مسلمون لوما بكوني الدارين عبد الله خديم عبده عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبحد كل مجرم ومجرمة كتبته أحمد ساسلاتي على النبي لا سلسلاتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جرجف سرين jërëjëf Serigne Touba encore jërëjëf Serigne Touba encore jërëjëf Serigne Touba encore jërëjëf Serigne Touba wasallama tasliman mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara euh, di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér euh, naal yi mu naal yéene yi mu am ci liggéeyal maamam na yeggale yépp te ñaan ko moom waaye di ziyaar yi mbooleem njabatuk sëriñ bi euh, di nuyu ki nga xam ni kàddu yoon wi moo ko yor muy Cheikh Mouhamadul Basir moom sëriñ Abdul Xaadar mi nga xam ne mooy porte-parole yoon bi moom it di ko ñaanal bu baax ci taxawaayam bi nga xam ne am na ko ci yoon wi am ko ci senegal am ko ci umma islamique bépp waaye noonu la ñuy nuyoo di ziyaare suñu sëriñ suñu xarit suñu waajur suñu lépp Cheikh Abdul Karim Mbàkke moom Cheikh Mamadul Fadal ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi nag di ziyaare bu baax jëwriñ alaaji Mbàkke bi fay mi nga xam ni mooy suñu waajur te yoru kàddu sëriñ bi ci ndakaaru ak li ko wër waaye di ziyaare sëriñ Cheikh Balla Samb mi nga xam ni mooy directeur de télévision Touba TV ak téléspectateurs yi ak mbooleem waa Sénégal gépp di dellusiwaat ak yéen nag ci seen émission bi di Takkusaani Touba TV nga xam ni tey ñu ngi ko defee fii ci Suisse waaye ci Genève ci kër Serigne Sidi Ndiaye jànkatu xasaay bii nga xam ni day wóllëre di xarit di am di jàmm di mbokkum taalibe moo xam ne defe naa ni yéen ñëpp xam ngeen ko muy doon jànkatu xasaay bu mag a xam ni mi ngi ànd ak. sëriñ Mamor mu Cheikh Mouhamadoul Mourtada mi nga xam ni gis ngeen ni def diaspora bi wuutu waajuram wu tedd wa euh, di ki nga xam ni mooy euh, sëriñ Mourtada Mbacke ibnu Xaadim Rasul mi nga xam ni moo toj Europe toj Asie euh, toj fépp ci àddina bi tuubal tubaab yi ngir ñu mën a dugg ci yoonu lislaam loolu nag la doomam ji xam sëriñ Mamor ndax mu doon loolu waaye nag mu yokk ko yokk goo xam ni. àddina bépp teg nañ ci seen dëkk yàlla yàlla yàggal ko te wéral ko te jàppale ko di nuyu sëñ Mamour Mbaye yoonu géej gi nga xam ne ñoo ànd ñëw ci liggéey bi ñu doon liggéeyal Serigne Touba ci France gis ngeen émission yi ñu fa def yëpp euh, teg ngeen ci seen bët waaye ñu àndaat jàll si fii ci Suisse fas yéene ànd ak émission bu am solo bi nga xam ni euh, ni ma ko waxee léegi rek euh, di nuyu tamit ci jotaay bi soxna yi nga xam ni ñoo toog. di ci nuyu soxna astu euh, ngom mi nga xam ni mooy porte parole daayira maam jaara bi nga xam ni dinaa ci ñëw léegi ak euh, ajaa Kumba Lum nga xam ni moom it daa bokk ci magum euh, daayira bi muy soxna yi ngeen xam ni ñoom it seen lépp dañ koy jël jox ko sëñ waaye di siyaare bu baax a baax soxna Daba Fall bu baax mii nga xam ni mooy présidente bi moom tamit nekk fii ci Suisse di soxna Serigne Seydi Ndiaye euh, nga xam ni moo jiite daayira bi nga xam ni mooy fédération daara yi daara yi soxna jaara yi nga xam ni moom la ñuy wax Suisse France waaye voisine nga xam ni euh, section bii nga xam ni ñoom ci la ñu bokk mooy ANMAS euh, section ANMAS mooy seen section bi nga xam ni ñoom ci la ñu ne waaye lu yaatu la loo xamante ni. fu bare bare bare la bok lolou xamna ci biir waxtaan bi tuuti inshallah dinañ ci ñew ak ñoom euh, ba ñu xam ni maam jaara bi daayira bu mag la waye daayira bu am taxaway la waye daayira bu boole seen bop la ñuy benn and di liggéeyal sëñ Tuubaa di liggéeyal soxla jaara inshallah rabbi kon kaddu bi rek dañu koy dal di jox euh, alaaji maam Mor ba yoonu géej gi mu nuyoo wóolu rek am di jàmm yek talibi sëñ Tuubaa yi nga xam ne ngi ci Suisse aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe borom Touba est-ce que sëñ Touba sëñ Touba amut morom bokk jullit bokki taalibe yi ak téléspectatrice yu Touba TV yi ñuy seetaan noo ngi leen di ziar bu baax a baax di jiital ci ziar bu Cheikh Mamadou Mountakha ni ko sëñ Moustapha waxe ziar bu baax rakkam ju tëdd ji ñu dénk diaspora bi muy Cheikh Mamour Mbacké moom Cheikh Mahamadou Mourtada waaye noonu la ñuy siyaaree bu baax a baax euh, sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadir di jaare Alaaji Mbacke yu ak ni ko waxee nu amati mbégte am kontaan seen émission décentralisation bi nga xamante ne dégg gis ngeen ko nu ko defee li ma waxee bi ñuy ñëw gis ngeen ma ne leen sëriñ Moustapha defee na émission bi euh, Istanbul defe na ko Màkkatal mu karam defee nañ émission bi ca Côte d'Ivoire maak moom ñoo ànd

ba mu doon doxal ci xasaayit yi ca ndakaaru ak Tuuba ak bi mu ñëwee fii tam loolu la continuer ba yàlla boole ko ku baax mooy soxna Daba mi nga xam ni yaay Fall la boobu ba tey mi ngi sonn ci ñun doonte séjour yi ñu fi def bu sañoon moom dañuy dëkk waaye sëñ Sidi Ndiaye nekkal nu fi nag ñu jaar baax a baax soxna yi nga xam ne kenn ku ne gis nga ni ko suñu safaar kan présenté. waaye li ñu bëgg rek mooy tey ngeen xam ne daayira maam Diarra saa Touba TV yéen la ak sëñ Moustapha Kane waaye ak maam Mor Mbaye yoonu géej gi ñu ànd ak yow sëñ Sidi Ndiaye mooy suñu invité kon yaakaar naa ni li ci am lépp rek dinañ leen ko defal incha allah kon xam naa sëñ Moustapha dama lay gi ndax tey bëgg nañu dégg xasaayit waaye itam dinañ fi waxtaane soxna su tedd soosu ak ay valeur yoonu murit jigéen yan responsabilité la ci war a occupé rawatina islam sëñ jërëjëf sëñ Mamor ci nuyoo bu am solo bii nga nuyoo ñu lay sant bu baax di la gërëm xam naa yow moom comme yaay sama invité tey dama bëgg euh, yaa may waxtaanal ci soxna jaara bala ma euh, dugg ak soxna yi ci daayira maam jaara bi euh, nga fàttali ñu tuuti soxna jaar yi la kon sëñ Mamor mi ñuy def rek nga la def dara dañuy bàyyi alaaji sëriñ Sidi Ndiaye xasida moom sëriñ Mamor moom Cheikh Mouhamadou Mourtada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 يا ماحيا القدي من قبل اوزارا يا مكرم الضيف جارا كان اوزارا يا ماحيا القدي من قبل اوزارا ناداك في البر بعد البر خادمكم wal yawma quttal lahu billahi maxtaara akramtahu bi xira amnin wa takrimatin faasaan jumlatil aswaa'i astaara xalaytahu an siwaari waani qablu kama هديته بالمنى دارين مبرارا بك انتهى سيره لله مرتديا عنكم وقد آذى أنوارا وأشرارا أمنته من سقاء فائسا أبدا خلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنى ما سفى ما بعد كدر من مصدر منه عند البحر دينار من سر الله حيث انتهت أبدا كما له قادما يهوى وأوتارا ولا لعين بيأس منه منصرفا وكل ما فيه در دبا وتارا لغيره ينتهي إبليس في أبد كفاه ربك تخمينا وأكدارا أنت نبي رسول المصطفى على من صلى عليك الذي تفديل قدارا أنت النبي رسول المصطفى على من صلى عليك الذي تفجيل خدارا إني لجارك يا خير الورى أبدا عليك سلم من كل له سارا صلى وسلم باق لا شريك له عليك يا من به لغت سارا لغت لبدي حديت لي أربي ما هود عني قبل اليوم أو سارا لغت لبدي حديت لي أربي ما هود عني قبل اليوم أو سارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sëriñ kon ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk taalibe yi jàkkaarloo ak yow. waaw jërëjëf sëñ Moustapha xam naa ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar te ëllëg muy seexul xaddiim waaye di ñaanal sëriñ Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér. amiin noonu lañ koy ñaanalee xalifa général di Baye Fall sëriñ Moodu Mbenda Fall suñ borom may ko gudd fan ak wér. di siyaare mboolem ñi nga xam ne rek. ñoo bootu ci seen ginnaaw. muy ci seex yi muy ci kilifa yi nga xam ne ñoo wutu seeni waajur ñépp bàyyiwuñu kenn. Mm-hmm. waaye di siyaar suñu jëwriñ. sunu kilifa nga xam ne ci ginnaaw lañ nekkoon ci ginnaawam lañ nekkoon ba yàlla dogal mu ñëw fii mm-hmm. muy sa nijaay di sunu nijaay di sunu lépp sëriñ mbàkk yu fay mm-hmm. mi nga xam ne jumtuwaay bi yàlla dogal na da koo def rek ngir liggéeyal sëriñ Touba. dëgg la borom dogal mu jël leen seen jëmm yi nga xam ne ku leen gis gis ko mm-hmm. mu teg leen fa ngeen di liggéey sëriñ Touba. moom ba sëriñ bi ba sëriñ Abdul Ahad Mbàkke waxee ne eh, amoon la ko xawoon na kii ca rajo boobee. Mm-hmm. waaye dafa mel ni jumtuwaayu Serigne tubaab bi dafa ñëw rek. fay loola ba nga xamante ne bii. Mm-hmm. moom defe naa ne bu fekkoonte ne dañ doon joxe raaya tey moom lañ koy njëkk a jox muy Serigne Mbacke yu fay. di ko ñaanal gudd fan ak wér bu baax mën nañu wax ci moom lu bari parce que xam nañ ko ndax mm-hmm. toog nañ ci wetam ba taaye. nekku nañu ak moom. di siyaar waa daayira bi itam waaye dina siyaar yow mii itam. Euh, Serigne Moustapha waye di siyaar Serigne mam Mor mbay yonu geejgi wi ci sama wet sha allah di ñaan suñu borom guddal fan yi wéral ci ri di bëgg lool nak ci tew gi ngeen fi tew muy seen euh, ñew gi nga xamne da ngeen fay ñew ngir liggéeyal Serigne duba di def tournée européenne mm. ba yalla dogal ngeen joggé dekk bu ñuy wax Paris mm. ci France ngeen ñew fi itam fekk ci wa Suisse fekk ci wa Genève waaye fekk ci wa anmas te bu ngeen fi jógee yéen ngi dem ci yeneen di dëkk macha allah di fa amal émission yi ngeen di amal sëñ Mountakha sëñ Moustapha xam naa ma def noonu ba dellusiwaat incha allah. jërëjëf euh, Alaaji Sëriñ Sidi ci nuyoo bu am solo boobu mu nuyoo ci xasida yi xam naa bala ma ñëw ak sëñ Maam ci li nga xam ne mooy waxtaan wi mu ñuy tijjel ci soxna jaara damay bàyyi soxna yi présenté wu rek bu ñu présenté woo nuyoo ak mbokk yi jàkkaarloo ñoom. ma ñëw ci maam jaara nag ma ñëw ci euh, suñ maam moor ñu dugg tuuti ci soxna jaara door a delsi nag ci yéen ci wàllu nag euh, daayira bi incha allahu rabbi euh, kon ki nga xam ne mooy soxna Astu Ngom mm-hmm. nga xam ni mooy porte parole bi moom la ñuy bàyyi mu nuyoo bu noppee nag ñu jàll incha allah bisimilah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di jiital ci nuyoo bi sëñ Sidi Ndiaye sëñ Maam Mor Mbaye ak sëñ Moustapha maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay di ci teg soxna Kumba ak soxna Daba Fall di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool balay sa purité wér yàlla guddal fanaam yàlla wéral ay cëram ba li mu yéene maamam Xaadim Moustapha mu yeggale ko ci sagoom maa ngi leen di nuyu nag di nuyu yi borom télé bi alaaji Mbàkke yu fay di leen ziyaare bu baax di ko nuyu bu baax fay moom Serigne Touba rek ko ko ñor lu maam Serigne Touba ko ko gënal kon yàlla na ko Serigne Touba fayal boppam. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay tey ñaan yàlla daje bi yàlla bu mu nekk suñu mujjëlub daje. yàlla nañ ko daje téeméeri at yi teg téeméer ci barke Cheikhul Khadim. ñu leen di ziare bu baax di leen jëfal ci déplacement bi ak dérangement bi ndax lii moom wax dëgg yàlla ñor nañu lool lool lool. ñor nañu intéressé nañu yëg nañu ñëw bi yëg nañu am nañ ci yëg-yëg bu rëy rëy kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di gërëm mbooloo mi fi daje yëpp. waaw wa rahmatulah. leen di gërëm di leen sant si teewaay bi ngeen ñëw ba fii si Anmas. ñun waa daayira Soxna Jaar bu Anmas Genève. Mm-hmm. kontaan na ñu ngi gërëm di leen sant. Mm-hmm. di ñaan yàlla nag. daayira bi ñu samp yàlla yëgale ko fu nu foogul woon ndax bëggoon nañ kër bëggoon nañ ko lu yàgg yàgg yàgg mais yàlla si si loxo soxna dabal ak jaarale ba tey lii samp fi kon nag dañ ko siy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fa ak wér ba fi mu bëgg yeggalee daayira bi ñu yegg fa daraje Seydina Muhammad barke Xaadimu Rasuul di ko gërëm nag di ko sant di gërëm tam sëñ Sidi ndax si këram la di def lu nu neex du nu yuux du lu lu neex rek neex na ko kon nag dañ gërëm moom tam di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér bàyyi kanamu njabootam bàyyi ko bàyyi bépp julli si daraje Seydina asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci ziyaar bi sang yaaram soxna Ndey Faatu Mbàkke mi nga xam ne moom moom moo ànd ak ñun ci liggéeyu maamam bi macha allah dëkk ca Lausanne waaw di ziyaar itam euh, di teg ziyaar bi ak nuyoo bi ci loxoy sunuy jëwrin soxna Faatu Gay Zurich ak soxna Penda euh, ca moom it Lausanne macha allah wala Yverdon mhm. donc ñooñu ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi moo tax bu ñuy tàmbalee ci ñoom la ñuy tàmbalee. Mhm. waaye di delloo siwaat nuyoo bi fii ci suñu mbokku taalibe yi nekk ci section ANMAS euh, Adja Kumba di suñu magu daara macha allah soxna Astu Ngam di suñu porte parole. Mhm. ànd ak ñun ci liggéeyu maam Jaara Buso bi. waaw dañuy tàmbalee nag sant. di sant suñu boroom kër sëriñ Sidi Ndiaye xasida mi nga xam ne yaaram Ndiaye euh, moom moo ñu moo ñu moo ñu jàppale. waaw moo ñu moo ñu moo ñu téyele. wax dëgg yàlla lépp lu ñuy def ci daara ji. Euh, daf ciy jiitu. waaw jiitu ci xasida yi. waaye itam jiitu ci ci ci ci conseil. waaw jiitu ci ci dëgëral ñu. ak encouragé ñu ci liggéeyal maam jaara bu so ndax soxna yi ñun loolu mooy suñu wàll yi itam ci liggéey sëriñ Touba bi. suñu bunt mooy maam jaaratul baax. Mhm. waaw kon ñoo koy sant bu baax a baax a baax. Mhm. bi nga xamee ne loolee nga xam ne mooy suñu wareef. mu mhm. ngi ci taxaw taxawaay boobu ngir jëmmi sëriñ Touba. ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax euh, sëñ Moustapha. Euh, sëñ Maam Mor ñoo ngi leen di siyaar di ziar mbokki senegal yëpp mbokki Touba TV. waaw di rafetlu bu baax a baax seen yéene. Mm-hmm. ak seen liggéey. àdduna bépp di ko gis. Mm-hmm. muy lu rafet rafet lu ama am solo lu jariñ jullit yi. Mm-hmm. jariñ murit yi. yàlla da ngeen ci am ngërëmal sëriñ Touba. bakki xasida yi. ñun nag euh, suñu buntu ci liggéeyal maam jaaratullaa fédération miftaaxul xayri la. waaw fédération miftaaxul xayri ëmb ay adhérentes yu nekk biir France. Euh, Sénégal Dakar Touba Italie euh, Canada donc une fédération bo xamné samedi bi ci 15 ans yi macha allahu euh, bis bo xamné dañ ko sante soxna jaara ci Lyon mbokki mbokki ñu moment bo bis lañ

waaye terewul soxna yi tëye ndax pas-pas gi waaw moom la ñuy wax saa su ne pas-pas moo am solo ci liggéey bi waaw bu fi pas-pas bi nekkee rek dafay feeñ ci pastéef gi waaw ñoo ngi ciy sàkku seen ñaan bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf euh, soxna yi ci nuyoo bu am solo boobu ngeen nuyoo euh, muy am solo euh, di leen sant leen gërëm xam naa nit ñi daal def nag mooy daal di jox sëñ Mamour Mbaye yoonu géej gi wala ñoo dellusiwaat ak sëñ Sidi ak it am tuuti lu ñu mën a laaj suñu wokki soxna yi ci liggéey bi am solo bi ñuy def ci daayira maam jaar bi sëñ Mamour noonu lay nuyu dina siyaar euh, te di bëgg rek nga baaxee ñu tuuti ci soxna su tedd soo su nga xam ni mooy soxna jaara mi nga xam ni suñu émission tey bii di takkusaani Touba TV dañ koo jooyal ci Euh, yëkkati xasida ànd ko daayira soxna jaara bi waaye nag waxtaani soxna jaara fii ci Suisse mu mel ni soxna jaara day koo xam ni fanweeri at ak ñett la dund fanweeri at ak ñett yooyu liggéey bu rëy bii mu fi liggéey yëpp ci fanweeri at ak ñett la ko liggéey am fi euh, ci gàttal Mamor Jaara borom sàmm mi nga xam ni moo sëriñ bi ñoo bokk ndey ak baay waaye am fi sëriñ bi nga xam ni bu fekkonte ni moom rek la fi am doyna na sëkk ndax mooy ki nga xam ni la mu waxoon yonent bi rek moom sëñ Tuubaa moo dellu siwaat ci moom ndax daf ni muhammadun fardun yafruqu tasniya waaye wa faaxa jamaan wala daa yaa wax ni nee na yonent bi mooy kenn ki nga xam ni bu taxawee nii boo dajalee imanité bi ñoom ñëpp waxuma sax doomu aadama yi waaye jinne yéeg mala yéeg ñëpp mboolem lu yàlla bind mooy kenn ki leen mën a remplacer waaye ki nga xam ni taxawaayam moom kese maanaam maanam maanaam man na leen a wuutu sax ba faw xaleen kon dalaan wax naan man yonent bi yéen amu leen man maa am bi ma yàlla amalee nag ci man la leen amalee kon mooy ki nga xam ni moo tax yàlla bind ñëpp kon suñ mamoor suñ tubaa moo ma fi ñëw nag doon yonent bi arfan bi arfin dimbali ñu ñun wan ñu yàlla wan ñu yonent bi awala ñu ci yoonu njub soxna jaaro mi ko fi indi nag muy jigéen ji nga xam ni boo demee poroxaan tey xam ni sëñ tubaa mat na doom waaye soxna jaaro mat na day ku ne kon loolu sëñ Mamoor ci lañ bëgg a ñëw rek muy jikkoy soxna jaaro akub liggéeyam nga baax ñu ko tey fii ci suñu émission bi di Takkusaani Touba TV fii ci Suisse ci Genève sëñ Mamoor yow la ñuy déglu jërëjëf sëriñ Moustapha jërëjëf sëñ Sidi waaye suñu soxna yi ci kàddu yu am solo yi ñu nuyoo waaye seen siidi sëñ na xam ne jàng bu du dul nuyoo euh, sëñ Moustapha kookoo defar lépp waaye lislaam moo yàgg am ay jigéen yu doon jàmbar deretu jigéen moo njëkk tuuru ci lislaam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne bërit jigéen ko taxaw jàppale ko waaye soxna soosu nga tudd tey laataa muy bi maam Anta Njaay ñëwee kër sëñ Mor Anta Sali loolu indiwu ko fa waaye personnalité bi sëriñ am tey la amul woon ba tax na sëriñ soxnaam sax daawul yomb lool déggoon naa ci seen jaajitaal dem si yàlla sa mu ne dàll yu toj lañ daan sol nit ku tër leen daan jox bu demee ba naan sëriñ bi am na soxna mooy dañuy bàyyi ba gis ko ay rab sadd mu faj ko ba wér sa ay bokkam amatuñ ci yaakaar ñu ne nañ ko may sëriñ ba desitu ñam lañ leen daan jox waaye buñ demee tey ba sëriñ di la remplacer homme d'état homme d'état ñëw bëgg gis sëñ bi mënu koo gis am na ku ca jàpp dëgg na kon valeur yi sëriñ si am tey tax na ba sëñ Mor Anta Sali daara ji réyoon na ku am sa nit fa koy yóbbu ndax mi ngi mel ni tey nit ku ne la enaam laa génne mooy daaree sëñ Mor Anta Sali laa génne ca jooju jamono wala nit ku ne la Sorbonne laa génne wala nit ku ne la école normale supérieure laa génne booba booba daara jooju loolu représenté ci réew mi daara ji yokku suñu moranta sali wara am ku ko wittali soxnaante jaay mu mayen ko njëkke ndax ibrahima awañag mi ko meññi mok maam balla mi meññi mor am suñu moranta sali ñoo bokk lépp te loolu yàgg naa am man ak yow ak keneen ku mënti doon sa doomi bàyyi ngay jël may ko njëkke loolu kon lu yàgg la keroog bi mu ñëwee ba defar ay sànqalam ak yooyu war a defar laax ak cereem di xaar gan bi ñu ko suñ moranta sali day am gan mu ne naa wàcce ji kooka ci la mag ñi ñëw daal di ne ko ci teggi togg ban toggun tuuru na ñun léegi lañ naan sëy ba tas nañ koog ñee bàyyante na nag waaye ñoom togg ba tuuru na boo ko gisee mooy lañ toggoon moo tax da ngay dégg diw togg nañ jox ko diw dañ koo togg yëg ko mooy defar nañ soxna ba mu ni mel mel jox ko nit mu war koo mhm. wan doon giddam mhm. doon ab sëriñam waxee la daal di jooy moom soxna Anta Ndiaye daal ne ba kon sëñ Mor mi du am wéttal daal ne ndax araam naa ko. nga xam ne ñooñu daal dañoo dugal ay wor. ay wor lañ dugal. am soxna sam doon jëli mujj. mujjutu am mu ne ndax araam naa ko. mag ngi xool xam ne seen bàyyee bokk bàyyi. ñu ne ko ah, dagan nga ko mu ne fas leen ko tey. bi mu ñëwee téye sëñ Mor téye woo xam ni sëñ Mor bëggatut kenn ci àddina mhm. dem na ba di ko liggéeyal ba soxna Anta Ndiaye daa rus sëñ Mor Anta Sali mhm. waaye sëñ Mor daa mujj rus ko mhm. bu ma saanee génn yem ci moom sax day duggaat dem ba sa sëriñ di rus la nag xaw gaa sonn benn bis la raam nuy ko ne ko man daam lu ma bëggoon mu ne ko ndax yàlla anta ma dégg ma ma xam loo bëgg ndax moom bi may ñëw ci kër sëñ Mor Anta Sali moom soxna Anta Njaay alal la fa indi ndax ci moom la donnoo ci wuy juróom lépp ne ko maag alal ji yaa ngi moom te la koy firndeel mooy xëy na bëgg dara sañu ko wax sax sëñ Mor daa yónni naw ne ko nee ko nangam laa bëggoon kon la mu ko ne woon jébbalu naa joxaale la sama alal loolu dëggu ci moom. bi mu ko ne daam lu ma bëgg mu ne ko ndax yàlla ma xam loo bëgg mu ne ko damaa bëggoon bu utal ma rakk kër gi soxla naa ci wéttal muy wujj la waaw bu doon jamono ji wujju mm-hmm. booba nag euh, la soxna Anta ne ko utal ma rekk sëñ Mor ne ko loolu sama xel xalaat ko waaye fi saasi rek mu gis ay fan kanam gi bellu nga xam ne les contraire bi la kii daa bëgg ñu utal ko rakk lak mu met ñu bañ mu met léegi nag jamono ji koo utal rakk ci lay met kon nga xam ne kon euh, soppi ko am na coppi ko am na mm-hmm. crise de valeur lañ toll te wujjeetu dara lu dul ñaar ñu bokk mbir kenn ku ne foog ni sa moroom saxala ko gënal waaye gis nga sëñ Moustapha keroog bi bi bi bi ko sëñ Mor nangu loolu mu dem kër Soxna Anta Ndiaye damay tënk rek. mu dem kër Soxna Asawaal dem naa leen. bi mu ñëwee rek Soxna Asawaal dafa bég ndax nee na li ko gën a neex mooy na mu téye rakkam ja mu ne ko Mariam mi laa bëgg mu wettali si ko. mu ne ko liggéey bu nga liggéey kenn du ko yàq te booba 15 ans la am soxna si. mu ne ko yaakaaruma ne dina ko yàq ndax boo nu fekkee woon lu téye jukki alxuraan doo nangu benn jukki daal ne ko tey léeg-léeg kër sëñ Mor Anta Sali am lu ma fa feeñu loo xam ne fa la war a feeñ dimbali nit ñi te man du doon ndeyam te Mariama mi gëm naa ne bu ñëwee mën na faa am lu bu baax di mhm. jigéen ñi bu njëkk boobu buñ leen di muur dañ leen di waatloo looy def boo demee ñu xas looloo tax jomb daan am ndabul fay daawoo gis ku ko yenn parce que bariwaan na suñu yaay yi bu ñu leen di tagg dañ naan la sa yaay di musta nam yenu ndabal fay lii na ndabal tas la nit ñi di yenu dañoo romb fay waaye ci saa si ñu jox ko ne ko loo fay mu daal di yem ci alxuraan di ko jàng يمتي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم أبي دارد جوي ينو كلو فانا رفيف مونا بدور نك آية بي مولير نماني كرسي مور أنت سالي جمو جم دانا فام يونت آية آية بي خمال نماني بنت يونتي تجنا ndax man wujju kenn rek laa ko defoon ci kaw suuf muy sayidatna aminata ma mel ni yonent bi mhm. daal ne ko waaye bu ma ca bokkoon moom du jur yonent bi ma des man mii maa ngi doon yaayam ji ko am 15 ans xas la daal ne waaye dinaa fa am loo xamante ne lu fi yonent defoon dana ko def ba def lu fi kenn defut waaye téye kam fa am sàkket bu mu téye woon rek moo waral daayira bi da koo téyeel sëñ moor taw bi sotti mu ne ko mu wut lu ma ko takke te nun sànq rek bi muy wis fii ñu ngi naan nañu xaar taw bi sewet ñu mën a liggéey moom na taw yu metti yooyu daan am ca yooyu jamono sakke de ban waxtu la ko téye sakke timis la ko téye waxtu gee la ko téye ba fajar sëñ moor day daf daf da ko ne jàppal ma mu ut lu ma ko takkee dugg ci biir taw bi suuf mu jàpp ne bàyyi na sàkket mu jàpp ne bàyyi na bi dal di dugg ci néegam ne ci ay alxuraanam ak noonu mu daan def bi fajar jotee la dal di jóg bi asamaan si ne melax mu gis ne sàkket wi daanuwul te dafa waroon a daanu ndax taw bi waru ko téye mu ñëw yër gis ko taxaw mun a ànd ak kii mun a ko mën a mariama boobu mi ngi si looy def ci taw bi mun a ko yaama woon jàppal ne woo ma bàyyi ko ci taw bi nga fanaan mun na ko ci sa ndigal mbàkke mun na ko maa ngi lay jéggulu waa bàyyi mu bàyyi mun na ko ci lan mu ne ko maa la fanaan ci taw bi mu na ko man yow lay jéggul mu ne ko loo may jégguloo mu ne ko bi ma demee ba fajar gi bëgg a jot satala gi laa xalaat ni amul ndox te dama koy soxla ngir jàpp dama wiir sàkket wi ci jamono jooju dem utal la ndox te santooma ko sëñ war na tàmbali nag di jooy raxoo yi sutti ko mu ne ko Mariama mu ne mu ne ko maa ngi lay giñ di la waatal ne ma xaama xutbaan yee man mi maa ko yor say xéewal dana wëri nii adduna bi kon bu demee ba def daayira maam jaare fii ci Genève ñii par force dañuy liggéey soxla jaar am na feneen am na feneen am na feneen waaye bii tey représenté na Europe gépp représenté na Asie gépp représenté na fépp dëgg la de sëñ koy sant sëñu Safa mm. ndax disponibilité mbaaxam ak mën a fédéré te it tàmbalee ko fii de soxna maam Jaara Mbàkke sëñ Muntaxa maa ngi koy nuyu maag moom ñoo daan jógee moom sëñ Sidi Ndiaye bu jógee ñaari tali ma jógee caaro yi ñu dem fekki ko Nord Foire ca daayira sëti sëñ Basiiru yépp nu ànd ak moom ak ñoom soxna maam amee nu fekk leen fa noonu lañ daan duggee ci kaar yi dem Poroxaan waaw sëñ Sidi mii soxna jaara ja yàgg na ko jaral mu jëli biis dem Poroxaan te booba am na ñoo xam ne bu leen ko waxee ñu jox ko oto mu dem waaye dana day bii lay ànd gunge leen ñëw lamsaar fii nga dégg ñu ne mbër yi fi lañ dëkk zone boobu ñoom Sitta ki ñoom Tidiane Faye ak ñooñu ñoom fëgga ñooñu ñëpp ñun ñu ànd ak ñoom di leen waxtaanal ci maam jaara wa imposé leen Serigne Touba ba kon ba bépp boo fa rombee xasaay Serigne Touba yi moo lay moo moo moo lay moom ngay dégg kon yàgg naa liggéeyal Serigne bi xoolal li mu def ak yow ñaar tali yow moom du loolu ñuy wax ci télé mais li ma bëgg a wax mooy sëñ Tuubaa fay na ko tey ma ñëwee fekk euh, kilim yi tàkk muy roy sangam ba sëñ parce que attention sëñ Moustapha xam nga nun waa Daaru Salaam léeg-léeg sax nit di ma sànni xeer Mamour daa daa mën day sañseeg day nangam na sëñ Tuubaa ko ne yow ci bànneex ngay yéegee yàlla ci jaxasoog nit ñi ngay kawee ca yàlla mm-hmm. waxuñu boo xamante ne safaan la sëriñ bi la koo woo mu ñëw mu ko cheikh mu ne ko mbàkke mu ne ko sa borom boo defetee bàkkaar sax ma def ko mu def ko ci yàlla mu ne ko yaa xam nga nu ma la koy dayaloo njukkal mbàkke mu ne mun ko ñuy dem bisu pénc ba du ma fi def la fi naqari suñu borom li ma fi delloo njukkal fii ak ñuy du ma fi def la fi naqari suñu borom loolu ku ko waxoon maam Mor Mbaye loolu boo defee tiyaaba bàkkaar tiyaaba lañ koy soppi nga ne mu ne ko yaa ah, moo tax si Musaa Ka ne ko nag yaa jëkk a jël sa mbir ci seen askan jébbal Sëñ Tuubaa lu dul ak kenn loolu émission lay laajaat maam Jaara xewle waaye ko xool nii xam ni maam Jaara Genève ali maam Jaara maam Jaara couture restaurant maam Jaara mam jaar euh, fondation soxna Bali muntaka doon koy nuyu di ziar ne ko di xamal ni ko sa mbolo mi ne fi ni len fi fekke ñu def bis bo xamni ne birki démb bis bu bis bu extraordinaire tuba yep xamni tay ñi ngi yëngal fi soxna jaar jumaay am juma ci senegal ñaari Nyari sax laa dégg sa Seydina Aysa jumaam ji ko waye jumaay maam jaara do ko degga Gambien bi daf maa laaj ci Porokhane ne ma euh, sëñ Mamour euh, Brodo dañ lay far di di la di la gis loolu mën a wax ci yaa ngi tere Gambien. man ko en tout cas li may wax mooy. Mm-hmm. fii Gambien bu ñu fi dencoon kenn du fi ñëw. <laughs> keneen fi dencoon sa wuy kenn du fi mm-hmm. fii dafa sori dafa pënd. waaye bàmmeel bu sos ay dëkk maam jaaraa ko. Mm-hmm. bàmmeel rek ñu koy seet ba dës dëkk sos ba te fi mu ne ak yow Porokhane am na chef de village am na kon bàmmeel boobu moo sos lépp loolu nag barkeel la baarakal yi fi xarakaati wu sukkur rabbi la si xat-xaar li kun feegun suñu safaa maa ngi jégalu ñëpp di siyaar waa daayira bii siyaar nag suñu soxna si nga xam ne xam na ci moom sago mu ànd ak sëñ Sidi Ndiaye di ko jàppale di ko liggéeyal ànd ak moom ci liggéey suñ tubaab bi ak désintéressement loolu mooy valeur loolu lañ soxla tey lii moo lii jigéen ñii lañ war a exposé bu lu 8 mars bu jotee ñii lañ war a wane wan leen àddina ne leen ñoom biñ ñëwee fii soppiwuñu Genève sopp so Genève Genève soppiwu leen ñoom ñoo soppi dëkk bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu macha allah jërëjëf sëñ ci waxtaan wu am solo yi nga wax yàlla na sëñ Tuubaa fay la ndax yow da ngay murit boo xam ni euh, boo dee wax ñëpp dañuy gis ci sa wax ni da ngaa bëgg sëriñ bi alhamdulilah ko ak lépp ci sëñ bi foofu na ne waaw daf ni amantohoo min saqaa in faa isan abadan xillan wa xibban lakkum laa yadxulu naar moom la sëriñ si di doon jàng léegi nee na xillan ki ma bëgg wa xibban wala nga sopp na ñoom ñaar la lakkum laa yadxulu naar duñ tàbbi sawara waxantumaa nag jébbalu ci moom waxantumaa nag liggéeyal ko kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax euh, lii mu wax léegi nii rek ci euh, tënk bu gàtt nii rek balaa soxna si yëkkati kàddoom euh, soxna jaara mii mu doon nett li nga xam ne moo téyel sëriñ bi sàkket wi tawte fa ba bër set keroog bokk na ci li ko sëñ Mor Anta wax fépp ndox yi nga xam ne ma wàcc tey yàlla suñu borom maa ngi koy ñaan mu may la doom joo xam ne lu toll noonu ci ay roo di leen ko gëm di leen ko topp waaye ku ne xam na ni suñ Tuubaa li ko topp man noppi moom li ko topp moom kenn xamul nu mu waaw kon euh, ñu ngi lay sant bu baax sëñ Mamour te di la ñaanal soxnaa su. Mm-hmm. yaakaar naa dégg nga sëñ Mamour ginnaaw bi nga nuyoo waxtaan wu am solo bi mu waxtaan ci soxna jaar ngeen nekk fii ci Genève di fi liggéeyal soxna jaar comme ni ñu ko waxee woon léegi daayira bi mm-hmm. lan nga nu ci mën a leer tuuti rek ci seenu nekkin ak ni ngeen àndandoo ci liggéey bi mm-hmm. ak ni ngeen ci jàppalante ak it ma lay laajaale ci biir loolu ndax. daayira maam jaara bi ay jigéen rek ñoo ci bokk. ngir liñ ko tuddee soxna jaara wala am ngeen seeni góor yoo xam ne dañ leen di euh, góoral ci biir. daayira bi dinañ ci jàppale ci wàllu xel ak organisation ak lu mu mën a doon. nga leeral yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo maa ngi leen di delloo di leen nuyuwaat. di kontaan lool ci question bi ngeen ma posé. maa ngi koy rafetlu bu baax a baax waa daayira bi nag. daayira Soxna Jaara bi ñun jigéen ñi ñoo ko sos waaye am nañu suñuy càmmee ñu fi nekk yu baax yoo xam ne ay mbokki taalibe lañu mhm. bu ñu wootee ñoom it ñu ñëw def ci seen kéem talaay kàttan mhm. bu daayira Maam bi jàllee tamit am nañ fi daayira murit mhm. waaw daayira murit boo xam ne fii lañ ko am ci anmas njiit la di sëñ Modou Mboup ak sëñ Bousso ñu ngi ñoo ko jiitee sëñ Fallou Niass ak ña ca topp ñëpp ak siñ bay sekk mm-hmm. ñoo yor daayira murit bi ñun nag ñoo nekk ñu jigéen ñi nag ñoo nekk soxna jaare yi fii ci Anmaas oh. ànd ko ànd bu rafet ànd ko it ànd gor wax dëgg yàlla njiit li di soxna dafa faal ñuy toog mu nawloo ñu lool nag def ñu nawle ndax ànd balaa neex ka leen jiital nawloo leen mm. ku ci ne cër ba nga moom jox na la ko ba mu mat sëkk mm. boole koog di la nemmeeku boole koog di la seet loo nekk mu nekk ci ak yow ba keroog muy sedd guy mu ànd bi nag wax dëgg yàlla rafet na lool anmas gi yëpp soxna yi fi nekk yëpp macha allah ñu ngi ci biir daayira bi. ñoo ko ànd ko ya liggéeyal soxna jaare yàlla rek tax ak yonent bi Cheikh Ahmad Bamba mi nu booleeg moom. te wax dëgg yàlla loo ci woote. ñu def ci seen kéemtalaayu kàttan ñëw ak seen doole. ñëw ak bàyyi seen i kër bàyyi seen i borom kër ñëw ak seen alal ba bis bi jàppandi ba bis bi rafet ba bis bi na jaara mi ngi koy defal ñu dañuy dem ba sentir nañu soxna jaara bég na ci ñun mhm. kon ñu ñaanal ñu yàlla musal ñu ci seytaane mhm. ndax seytaane kat nit la rek ku yàq mhm. buñ ko doolee lul du am doole kon Serigne Touba mi nga xam ne moo ñu tax a jóg ak na soxna laa mi ñu xam ne moo ñu tax a jóg yal na ñuy musal ci seytaane yal nañu tënkal seytaane na mu ko tënkee woon ca géewal yal na yàlla taxawu taxawuñu taxaw suñu njaboot taxawuñu ba ko dooleel ñu na nu ba fi ñu bëgg a yegg ci liggéey soxna jaare bi ñu rom ñu li ñu liggéey ci lu kawe suñu njort waaw di sant tamit sëñ Sidi Ndiaye mii mm-hmm. ndax nag yàlla nee na moo ko santul nit mm-hmm. man yàlla ba ma santee eh, mm-hmm. duma nangu waaw ndax sëñ Sidi mun naa mën na ko li tax ñu koy sant wax dëgg yàlla Ndiaye yaatal nañu ci këram gii. Mhm. soxna jaari ji fii lañ ko doon defee ah fii ci biir këram gii. Mhm. di ñëw di toog ba heure bu nu neexee coow li mel ne ay mu toog fii nag jàppale ñu suñ mhm. siidi mi jàppale nañu de. dina yëkkati xasida yi sëñ Bamba yi ba ko ci nekk dootoo xam foo ne. denn ci man mii toog fu mu yëkkati ay xasida su may rongoñ buy wadd sax duma ko tey. mu naa mën a ko mu yaatal nu jóg leen julli waxtu julli jot na ñu jóg jàpp mu jiite bu julli jotee mu ne ni jóg leen julli bàyyi leen li ngeen di ñu jóg àndandoo moom mu jiite ñu fii ci këram gi ñu fiy toog di fi dugg heure bu nu neex di fi génne heure bu nu neex te xam nga ni këri France yi yaatuwul te it wax dëgg yàlla jot gi tamit bëriwul te it ñi fi nekk ñëpp dañoo yor ay liggéeyu jàmbur yoo xam dañ koy xëy di waaye sëñ sii di xoolul loolu lépp tant ñi ngi toog mu toogandoog ñun kon yàlla na ko fay njaay yàlla yàggal taxawaayam te dëgëral ko te bàyyi ko ci sunu kanam ba ci kanam ak kanam ci barke soxna jaaritullahi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp jërëjëf soxna su ci leeral yu am solo yooyu ñu ngi lay sant yow bu baax a baax mm. te di la ñaanal noonu boo ko waxee rek yàlla euh, jàppale leen mm. ba lépp àgg ci jàmm ak salaam xam naa euh, dañuy bàyyi rek bala ñoo ñëw ci sëñ Sidi euh, soxna Daba loolu ci ay kàddoom mën a moom tamit tàggoo tàggoowaale ñu ñëw nag sëñ Sidi moom it mu indi ñu tuuti ay leeral euh, ci li nga xamante ni mooy émission bi ba noppi euh, yëkkatiwaat na ñu tuuti tamit gën xasaayit goo xam ni incha allahu bi moom la ñuy tàggatoo kon soxla Daba euh, xam naa dégg li nga xam ne soxna Astou wax na ko yan kàddu nga ne ci tegal ci wàllu daayira bi loolu ci dolli ci loo xamante ni daayira bi taxawaayam mm, am na ko ak it. leneen loo xam ne jàpp nga ne xëy na bu ko ci daayira bi dina gën a baax wala xëy na loo xam ne bëgg ngeen ko dem ba am seen kër sëñ Touba wala kër maam Jaara wala yu demee noonu lan daal nga mën a dolli rek ci en tant que jëwriñ nag ñoo xam ne yaa jiite sa mbooloo. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi euh, sëñ mustapha hmm. ñoo ngi dollee ziar di rafetlu bu baax a baax a baax euh, seen euh, kàddu seeni question ak yitte gi ngeen jox liggéeyu maam Jaara Buso bi sëñ maam Moor sant nañ bu baax a baax ci kàddu yi rafet na waaw yaatu na matale na tey murit bu ko dégg sa xol dana tooy ñun nag lu ñu def lu dul itam di sant di gërëm suñu porte parole soxna Astu Ngom yitte ji mu jox liggéeyu maam Jaara Buso bi kàddu yi mu yëkkati sànq Ngom matali na lépp wax dëgg yàlla suñu xol da cee tooy te lii rek lañu ànde waaw ndax cër bii mu am ci daara ji ba nga xam ne tey jii lépp loo xam ne moom lañu war a yëkkati ci kàddu ci moom lay jaar cër bu ko sëriñ Touba jox la mu koy matale bu baax nag waaw am ci am ci pas-pas am ci pastéef macha allahu ngom kon ci tuur daayira bi yépp ñoo ngi lay sant di la gërëm ak ci rafetal géeg ndax yor parole du lu yomb waaw yombul dara waaye saa su ne seen yitte mooy nu ngeen di def ba mu rafet nu ngeen di def ba mu gën a rafet ndax rafet na ba pare sax nag macha allahu waaw kon jërëjëf ci turu daara bi yëpp ah sunu yaay Adja Kumbalum moom dañu koy jox mention spéciale ndax ñun dox bi ñuy dox ci yoonu maam jaaratullaa yoonu sëriñ Touba yi mag ñi dañoo doon suñuy yitte mag ñi waaw euh, suñuy magi daara dañoo doon ñoo xam ne dañ leen a soxla ci ànd bi euh, liñ leen soxlaa nag mooy lekk li nga xam ne moom la sëriñ bi namm ci ñun mooy ñu booloo ànd nekk benn Euh, mag ñi yërëm ndaw ñi ndaw ñi weg mag ñi bi ñu déggee loolu lañu xam ne yoon wi mënee su ko dox ñun rekk bàyyi ñi nga xam ne ñoo ñu féete mag waaye jiituñu itam ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi jiituñu jiituñu ci lu bare bari kon suñu wareef mooy jiital leen kon ñoo ngi ñaan euh, suñu borom tabaraka taala ci barke sëriñ bi ñu koy xamee noonu di ko doxe noonu di ko àndeek ñoom noonu ndax loolu mooy rafetal ànd bi kon ajaa Kumba euh, ñoo ngi teg nuyoo mag ñi ci sa loxo ak cant gi ak ngërëm gi nga jàllaleen ñu ko ci magi daara ji yépp di leen sant di leen gërëm lu ñuy yëkkati yéen a ngi ci yéen a ngi ñu ciy jiitu sax nag loolu la ñuy wax waaw sunu cant soxna jaara ji ñu fi organisé euh, mois de février wane na ko dangeen a ànd ak ñun ci lu baree bari mu kawe njortu lool macha allahu daayira bi ci gox bi comme niñ ko waxee 2019 euh, lañ ko tàmbale bu ñu nee 2019 xel yëpp day dellu ci Covid. Mm-hmm. kon ñu jàpp ne euh, jàpp tëw a bàyyi la. Mm-hmm. ndax bi Covid bi duggee nga xam ne ñun dañ doon soog a door euh, lu bari mënoon na fay xew waaw waaye soxna yi dañu dañu dañu. découragé wuñu waaw dañoo téye daayira bi te nga Covid bi yëpp ñuy def social bu am am solo social bi nga xam ne moo tax a jóg daayira ñu fàttali ko sëñ Cheikh Gaynde Fatma la mu ñu digaloon ci daayira nañu daje di àndandoo. solidarité voilà solidarité. di jàppalante suñu biir. kon daayira bi mën nañ ni action bi ñu njëkk a def mooy jàppalante boobu. ba Covid bi jàll na fi mu nekk nii li nga xam ne moom la moom moom lañu moom la ñu dëgmal mooy gën a booloo suñu biir gën a yaatal daara ji ci gox bi gox bu ci nekk rek section bu nekk rek euh, gis ne taxawaay bi loolu la mooy naka la ñuy def ba mu yaatu ba murit ya fa ne du ma wax sax que soxna yi waaye murit ya gis ci seen bopp incha allah jërëjëf euh, soxna Assoulaye jërëjëf soxna Daba Diawri euh, ñu ngi leen di sant bu baax di santaale suñu yaay Adja Euh, lu ñu ko ñaanal bu baax a baax euh, yaakaar naa li li li nga xam ne ñoom wax nañ ko muy seen bëgg-bëgg ci booloo gi ñu booloo ñoom jigéen ñi euh, yàlla na leen ci yàlla jàppale bu baax ba ñu am seen kër Sëñ Tuubaa bu mag boo xam ne luñ bëgg def ca lañ koy defee sëñ Sidi mhm. ñu ngi lay di la siyaare yow nag daanaka yow lañ dalal tey ndax dëgg la kàddu yi fi soxna yi jël ak yépp sax mhm. xëy na dafa mënta ñàkk rek ngir teewaay bee yu demee noonu mhm. waaye mën nañ ñu tey ji Touba TV moo déplacé wu ñoo seet si la te nga bokk ci Touba TV nag wax nga ko léegi ci say kàddu euh, jëwriñ ñi borom télé bi di Alaaji Mbàkkilu doon suñu kilifa ñun ñëpp defe naa ni daayira bañ sosoon ci këram ah. muy daayira ba fa njëkk nga xam ne moo jur lii lépp tey loolu bañ koy bokk di ànd di fa dem defe naa ni buñ dee ñaar ñaar lay doon wala ñett wala ñeent man ak yow ak papam euh, nga xam ne xëy na ku ci dolli ko rek hmm. ca ca nga dolli ko ba mu gën a yaatu loola di law tey ba agsi fii mu agsi ñu lay nuyu di la siyaare fekk si la fii euh, ngay ànd ak sëñ maam moom nekk ci xasida yi euh, ban taxawaay rek nga nu mën a wax ci taalibe yi am nañ ko fii ci France am ko ci Suisse ndax fi nga nekk naa ne àddina bi yëpp ñoo fa ne waaye fii en tant que jàngatu xasida gis nañ lu fi xew taalibe Sëñ Tuubaa yi dinañ la woo nga ñëw yëkkati xasida yi loolu ban jàngat nga ci am ak lan nga ci mën a wax téléspectateurs yi sa diggante ak ñoom ak loo leen ciy delloo njëkkër ak loo leen ciy sant. Euh, jërëjëf sëñ Moustapha tubaarkàlla émission bi am na solo lool. Mm-hmm. muy émission bu am solo boo xam ne àdduna bi yëpp danañ ko seetaan. mu mm-hmm. di ko bàyyi xel par altine bu jot ci ngoon. Mm-hmm. yooyu dañ lay jaajëfal ndax. fàttaliku buñ masaan daan jàng dañ cee yem rek toog waaw dinañ ñëw ñaman yoon boo xam ne incha allah daayira maam Jaara bi moo ñuy tax a jóg waaw kay incha allah waaye di leen sant nag bu baax ci seen taxawaay mm-hmm. ak euh, seen yitte gi nga xam ne ñu ngi koy def ci daayira bi mm-hmm. njàngum fii nag sëñ Moustapha euh, euh, yomb na yombul mm-hmm. ndax dëkk yi xam nga ne dañoo soree waaye yàlla dimbali murid yi fi nekk ba xam ne foofu murid nekk bu ñuy organiser daanaka dañ koy matal li leen xaw a mutale ak Sénégal rek Sénégal jóg gi demuwaay bi day yomb. day yomb dëgg la ah, fii nag demuwaay bi yombul. aw soriyaat aw soriyaat daanaka foo ciy jàngit dem bu ñu nee suba la. Mhm. wala nga teel a xëy dem bu ko defee mën a dal bu baax a baax mën a jàng. Mhm. ci boobu moom ñu ngi ciy sant yàlla baax ndax euh, programme yi macha allah waaye di ci sant nag sëñ Mamor moom Cheikh ah, Mouhamadou Mourtada. mu seexul xatal bu amoo am solo sax ndax ñun. Mhm. bi ñu fiy door a ak xaj na xam am njàng. Mm-hmm. ñu daal di dugg ci xolam. Mm-hmm. waaw suñu borom dogal mu daal di sabab ba ci moom la bàyyi ko ñu ànd ak moom. Mm-hmm. ñaareelu tournée ba it di Espagne. fekkoon ñu ñu ne ci leneen sax waaye. Euh, ka ànd ak moom di loxo ndeyjooram daal ñuy woo ñun sëñ bi nee na ngeen ñëw. ñu daal delluwaat. jëlin boo xam ne ku muy àndal ko nekk rek. Mhm, dina ko xool ci waaw bu baax a baax. te sant la macha allah. Mhm. Euh, fii fii ñu nekk nii ak Sénégal lan moo ko wutale ci wàllu euh, taalibe yi ndax bëgg gi. Mhm. xasida yi. ak euh, def bis yi ak yooyu yëpp gis nañ ko. ndax am na benn différence entre taalibe Sëñ Tuubaa yi nekk fii ak yi nekk fii ak njàng meeg. bis yi organise organiser ak li ñuy dundale yoon wi. ban différence la am. xam naa nag sëñ Moustapha loolu tontu ci dina xaw a jafe loolu mhm. waaye dina yombit nag ndax li tax mooy boo xoolee taalibe yi nekk xam naa li sëñ Tuubaa di wax ne maanaam dafa mel loo ko sori sori daal sori gi ci boppam du nga koy ci la ci la liggéey ma di gën a feeñ dama xamul kenn ci yéen am na ko ko doon wax bërki démb dama mhm. xamul yow la xamul Maam Mor mi mhm. am na ku ko doon wax benn bés ci waaw ci bésu 8 mai bi. maanaam rafetlu taxawaayu ñooñu. ba nga xam ne maanaam ak pas-pas bi ñu am ak. yéene gi eh, dafa feeñ feeñ boo xam ne ñi nekk Sénégal miin ko sax bu ñëwee dañuy defee ne nit ñi doxewuñu noonu. dëgg la dëgg fekk fii dañ fiy dund Sëñ Tuubaa nag. Mhm. waaw dañ ko fiy dund bu baax a baax a baax. Mhm, di ko fi dundal it. di ko fi dundal. murid yi ñu murid yi ñu am pas-pas mhm. ñu am ba ci njàng mi ngi sax eh, xam naa ne boo yàggee di dem eh, amul folklore amul rajas moom lañ gën a fonk waaw moom lañ gën a fonk kuréel rajas mm-hmm. waxtaan ci sëriñ bi comme sëñ maam Mor li muy def mm-hmm. loolu moom lañ gën a favoriser sax daanaka njàng mi bu ci bu kawee dugg sax mm-hmm. yow moom buñ dañ lay bàyyi nga jàng ba noppi rek waaye bu déwee ne da nga leen may ak keneen ñëw incha allah loolu seen doxalin la boo xam ne gis naa ko ci ñoom te sëñ Tuubaa yi noonu la ko bëggee waaw noonu la ko bëggee jigéen ñi kasaalika dañ leen di teg daanaka daal ndax si moxo bi sunnatu yàquduna lil jannati loolu ma wax ci ci wàllu mawlu loolu daanaka mooy mooy dox foofu mooy dox foofu wàllu wàllu liggéey bi ngay def xam naa dañ lay bàyyi après nga jàng xasida pour ñu tàggatoo mm-hmm. liggéey bi ngay def mm-hmm. ak njàng mi mm-hmm. est-ce que dara du ci yàq du ci yàqal sa morom ndax dañoo gis ni nit it lu mu mën a def ci àddina dañ koo diggal muy liggéey liggéey ab liggéey la njàng mi jàmm yàlla la te loolu lañ diggal ab jullit muy liggéey ak jaamu yàlla ñaar yooyu noo leen di boole te ñu ni sëñ Sidi daanaka programme yu bari taalib yi dañ ko fesoon. waaw dëgg la loolu nag jafe na lool moo tax sax léeg-léeg liggéey bi dinañ ko am. Mm-hmm. waaye dinañ am liggéey boo xam ne day xaw a gudd soxna si ji xaw a dimbali léeg mm-hmm. dañuy xaw di eh, nangu liggéey yooyu sax waaye moom dañuy fàttali ne dañoo moomut suñ bopp. Ah, dëkk waaw dañoo am luñ jaayante ne dañ koy liggéeyal sëñ Touba. Mm-hmm. moo tax bu ñu dugg ci yenn liggéey yu guddi yi. waaw mm-hmm. nañ nañ ko nañ koy xool bala ñu ci. ba nga xam ne saa buñ la woowee. nga mën a jóg dem dem bu nga ñëwee continuer sa. Ah, tax fii moom boo signé dara rek la nga mm-hmm. signé ngay respecté. Ah, eh, moom léeg-léeg di ko sant bu baax tam moom it ndax. Eh, ni ko soxna Astu waxee léegi nii. suñu loxol di joor la suñu lépp la. waaw ah, ndax du ñu def dara te waxtaanuñ ci ak moom. moom it kasaalika ni ki noonu. kër gi moom wax dëgg yàlla bi ñu bi ñu yàlla boolee ñoom ñii bi ñu naree sos daayira bi dama leen ne nañ ko sosu ci kër gi waaw nañ ko fi defee moom mi ndigal rek lay wéy nag dëgg jox ko ndigal ci loolu daal di dajale ay moroom yëpp daal ko fi mm-hmm. amul lenn lu muy defit te duñ ci waxtaan mm-hmm. loolu di di di lu baax loo xam ne nag mën nañ ko wax ndax lu rafet la tax na njàng mi ni nga ko waxee rek ñun mm-hmm. euh, bu ñu amee programme weekend lay doon xam nga Europe moom weekend rek la ñu am. gontu àjjuma dem. fanaan jàng dimanche ñu dellu si waat. wéyale ci suñu liggéey fuñ ci mën a amit programme noonu lañ koy doxale suñu ñun sax. jërëjëf sëñ Seydi xam naa waxtaan wi mënoon naa gën a yaatu sax waaye comme xam naa ni euh, mi ngi bëgg a guddi. te xam naa ni am na leneen lu ñu war a def. dañ lay bàyyi rek nga mayaat ñu tuuti rek. ay bayitu xasaayit mm. daal di tàggatoo. Euh, sëñ Mamour Mor tàggatoo ñu mën a yëkkati jotaay bi incha allah damaa xamul nag di yi mooy njiitu tàggatoo bi wala ñu tàggatoo bi wala ko jàng bayit yi nga mën nga yëkkati tuuti ay bayit boo noppee door a tàggatoo su ko defee sëñ Maamoor door ndax gars tamit dañuy nam xasida yi waaw fan yi gis nañ ni sëñ Maamoor émission yi ñu jot a Sidi rek Sénégal ñi ngi di apprécier bu baax hmm. di wane ni moom fàttewul li ko indi woon Europe kon kon Sidi ñu rek indi ñu di la di xamal ñëpp itam ne yow it jàngkat bu mag a bu <laughs> mag sax léeg-léeg am na benn ma toog sama benn xarit fii di seetaan mm-hmm. émission ngoon yi. Mm-hmm. yaa ngi micro bi fii waaye mm-hmm. kay jàng yaa ngi cay aw loo xam naan ki ci suuf kan la <laughs> ko kooku <laughs> <laughs> mu invité xamul ne allah rek. def jam, defal ñu tawfeex bu baax baax. rahim. sukri li rabbin. كريم كان سكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا سكري لرب كريم كان سكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا كتبت سكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وسكارا وسكارا وجهت وجهي في سهر نبي سندي لأكرم الرافع الوهاب سكارا رجوت منه تعالى سكره عملي وارفعه اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمهو الصلاة جملتها عني وتسكيره لدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا فجاتني ربي في الحلال هب لي عن أعود للبر رشدي كل من بارا على النبي صل بتسليم بالقرآن وارفع وثنيا بعد رأس الأفوار على النبي صل بتسليم بالقرآن وارفع وسدني بعد الرفع أبكارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هرول لين سنت سخنا جارا غير مونو ماي لي تخنو سامبي دارا هرول لين سنت سخنا جارا غير ماي لي تخنو سامبي xerewlu leen nu sant soxna jaara ngir moonu may li nu sampi daara yonentu leen te ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp mm-hmm. te ubbi seen bagaani xol te taatan maam jaara waame ku naanul yaa bon na bawal taw na kajoor taw njaambur ba ngaan ku mar ëllëg doog jaambur waaloo ngi walwali diggantal waalo ngir naan ci ji doomi asta waalo jaaraama sama firu naawel mm-hmm. sa géej gi na waa ji naan ci farwel mm-hmm. jarama maam jaarama fiiru poroxaan mm-hmm. na xuu dayoo ngi bay coroxaan gànnaa dëtam nanu banan ba mandi yaay sam do kajul ci kande Mhm. tëkkaleel aar jigéen ñi bu sa baal yi xaw na araam mel na ni mhm. yàlla yaale di tudd seen di tudd bamba aram na ngir moom rekk attan yan ba laam sa gendar te am tindooni mhm. yót nañ ko waa Tuubaa gedek tindoone subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil ngi jégalu njàng bu baax nga njàng moo xam ne da nga baaxoo taxaw di ko def. Mhm. ba pare di ko yuuxu ca kaw boo dee nag sa baat ba noppi. Ah, ba fii nag moom ñaari ah. moo tax léeg-léeg nag ngeen di ma woo téléphone wala ngeen di ma dugal ci émission bi. doo mën a jàng ca kaw mel sëñ Maam naan ma yëkkatil. bala ñu bala nga may wax dara yëkkatil xasida <laughs> fekk fu mel ne ngay ne moom moo tax ñëw na ba gisal boppam gis na gis na gis na moom gis na beneen mamoor la mën a tooñ moom waaw moom moom gis na ko rek waaye moom moom tubaarkal la seen ñëw gi nag mm-hmm. duma ci ñàkk bañ a wax sëñ Moustapha mm-hmm. bég naa ci lool wax dëgg yàlla te murid yëpp it bég nañ ci alhamdulilah waaw yéen sax gis ngeen ko ndax fu ngeen dem fu ne Euh, la ñuy jooy mooy. waxtu yi ngeen ba bés yi ngeen fi am moo bariwul. waaw ndax fi mu ne bari nañu baree bari fu ñu leen woo. am na ñoo xam ne sama téléphone noppaluwul. Mm. ñu ngi may woo téléphone. Mm. lu nekk ñu ngi koy wax pour bëgg ngeen dem ci ñoom. ndax fii da ngeen fee bari ay soppe. ñu leen di bëggee. Mm-hmm. waaw am na koo xamante ne bi dafa ma woo ma sëñ bi ma ne ko amu ah, ne ma dimbali ma ngir yàlla sëñ Maam Mor ak sëñ Moustapha Kane mhm. bu ñu ñibbi mukk te ñëw ñu fi ma berndeel leen dëgg la waaw nga xam ne ñooñu ay nit lañ ñoo xam ne yàgg lañ leen a teewlu mhm. te ñu sopp leen lool waaw moo tax euh, dañ leen di ñaanal bu baax bu ngeen yeggee mhm. ak jàmm incha allah ngeen daal di ñëwaat te tubaab bi leen di jox euh, visa yi mu yokk ko bu baax a baax ndax ñi leen di soxla bari nag te yéen da ngeen a war a liggéeyal sëñ tubaab waaw waa Espagne ñi ngi leen di xaar Ah, Italie ak euh, fële di Danemark ak euh, suwet dëkk yooyu yëpp. ak Angleterre ak Angleterre ñi ngi leen di xaar. te ba tey am na ci dëkk yoo xam ne demagu leen fa. te ñoom ñëpp fi mu ne bi ñu déggee seen ak yéegi seen ñoom fii sëñ Moustapha dañ cee bëgg lool sama téléphone noppalu wut ku ne lañ may woowee ngir ngeen dem fa. kon loolu tawfeex la ñun bëgg nañ ci sant nañ ci bu baax. ñu ñaan yàlla yàlla defal leen tawfeex. ñëw gii ngeen ñëw suñu borom def ci ndam ba ngeen delluwaat ci jàmm fekkaat ñu ci jàmm di sant nag ñëpp waaw di sant soxna yi nga xam ne sunuy soxna lañu. sunu lépp lañu. di leen ñaanal tawfeex. ak tey seen sëriñ bi. barke Seexul Xadim xam naa di tàggoo foofu rek sëñ Maam Mor di ko sant bu baax waxtaan wi am na solo macha allah. li mu wax man na cee jàngate ci lu bare bare bare bare. waaw di ñaan suñu borom guddal fanam moom it moom murit la te saadex la macha allah. am na yàlla guddal fanam te defal ko tawfeex. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Sidi xam naa. kon foofu la ñuy tàggoo rek waaye di la sant euh, ci turu sëñ Mame Mor mi euh, di la gërëm di la ñaanal ndax euh, tukki dafa metti rawatina nga dem ci réew moo xam ne yaa ngi fay door a dem ki nga xam ni moo bàyyi léppam bàyyi liggéeyam bàyyi ay soxnaam bu xëyee jël otoom taal ko dugal la ci ànd ak yow fu ne mu ànd fa ak yow kooku mënoo koo fay waaye dangaa xam ne lii ñuy def ñun ak yow ko ñoo bokk tele bi ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk sëriñ bi ñoo bokk lépp. te it yàgg ngaa sàkku ñu ñu jóge Sénégal ñëw fii sàkku woo ko yem ci danga ciy dox ay jéego euh, loo ci man nga di ko def ngir yàlla man ñu fay indi ngir ñu liggéeyal fi Sëriñ Tuubaa loolee nga bëggoon nag. te saa su ne nga ne ci di ci góorgóorlu moom la la yàlla defal comme ñun ñu laa fay dañ lay sant di la gërëm di la ñaanal euh, di wax euh, téléspectateur yi nga xam ne rek. ñoo ñu doon topp tey fii ci seen émission Takkusaani Touba TV mhm. ñu doon nga defee nag fii ci Suisse mhm. waaye ci dëkk bi di Genève waaye ci kër gi nag di kër Serigne Sidi Ndiaye mhm. xasida mii nga xamante ni moom lañ fekk si tey euh, di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje incha allahu rabbi balaa yàgg rek ñu àndaat ak yéen yeneen i émission ci yeneen i réew nag ndax Takkusaani Touba TV dina daj kàpp àdduna bu neexee yàlla incha allah rabbi والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مني لمن هو الوجود والخدم حمد وشكر وتقبل الخدم